asalaamaaleykum euh, audio bi dama bëgg ngeen yeggale ko Mame Mbaye Niang euh, dama ko seetaan léegi euh, Sen TV waaye lu géej gi riir acharnement bi mu am ci Sonko c'est uniquement pour essayer d'invalider la candidature de Ousmane Sonko mais c'est peine perdue gis nga affaire bi lu Ousmane Sonko gis nga un candidat Amadou Ba xam nga yow wax nga ne Amadou Ba du gagner. kon keneen mooy gagner. même bu fekkee ne sax probabilité boo xam ne la euh, supposons que ku mel ni Aly Ndiaye wala ku mel ni euh, euh, comment dirais-je les autres candidats du camp de euh, les ex les ex membres de Benno etc. Ni ñu wa APR pour taxaw xam nga yow taxaw lo wax nga ko ok même bu fekkee ne ñooñu sax par miracle <laughs> sax ñoo toog yow dinañ régler sa problème parce que Prodac dinañ ko teg ci table bi te Prodac du affaire yi parlement du affaire dara ok y a un dossier tout le monde le sait am na ko ci bind livre Amadou Ba ci boppam nga xam ne ànduloog moom ñëpp xam nañ ko te temps yi yëpp yaa ngi koy chantage di chantage à le président de la république parce que gis gouvernement bi amuñu benn dossier bu direct entre Sonko et le gouvernement du Sénégal ñaari dossier la et ñaari dossier yépp day privé que ça soit dossier à que ça soit dossier Mambayan Mbaye Niang ñaar yépp c'est privé état dugal ci seen loxo di ci jéem a pour invalider candidature Ousmane Sonko et c'est peine perdue gis nga Mambay, yow yaa entre le marteau et l'enclume tu es le seul à pouvoir sauver ta peau pour demain et je pense que même c'est trop tard parce que tu as fait tellement de mal au peuple sénégalais que le prochain président le prochain gouvernement du le Diego Mambay tu as dit beaucoup de choses très sales sur le, euh, sur le, euh, euh, le président Ousmane Sonko. mais Mambay nga tal bu tal, taal nga bëgg koo fay taal boobu tal lay taal da nga tàkk jëfeet xool tey seen TV ma gis ne sonn nga sa kanam gi wàcc na say souci yokk na nelawatoo nelaw bu doy walla nelaw bu neex ça se voit yow benn problème rekk nga am ak waa PASTEF mooy le 23 mars bi dëkk bi tàngee nga tiit xool ku gën a ki nga gën a jege ci biir Pastef nga daw dem ci moom ne ko sàng leen ma sutura dimbale leen ma protéger leen ma temps boobu noonu ñépp a ngi tasaaroo waa membre Benno waa membre APR ñépp daw nañ dem nëbbu ci gis nga rancune boobu nga xam ne waa Pastef dañ ne la ñoom il ne protège personne rancune boobu moo la topp ba léegi mais léegi mu jeex février le vingt cinq yépp a jeex foo jëm frontières yi yëpp rab lañ koy def maa doo génn doo daw di nga taxaw ak sa procès Prodac nga xam ne corps de contrôle yi def nañ ci seen liggéey di nga uyu ji justice maam mbay temps boobu ñi nga bëggul ñu nekk candidat maanaam Bassirou Diomaye ak Ousmane kenn ci ñoom dina nekk président incha allah rabbi donc maam mbay c'est pas la peine ngay wër ci plateau yi du wax ñëpp xam nañ li xew dans le background chantage fu nekk ak parce que yow rek ci des dossier Adji Sarr daanaka jeex na kenn waxatu ko Max jéem nañ ba sonn Max bi daanu ban des dossier Mame Mbaye moo tax ñu ci di jouer avec le temps jéem koo programmer pour le 4 waaye yoo xam nga ne li avocat Sonko le cadre kenn du juger dossier boobu noonu parce que nous ñu dem conseil constitutionnel dëkk njëkk da nga am ay avocat Sonko am ay avocat te avocat yi Sonko yi ñoo mun sa avocat yi yoon duñ sa morom duñ seen morom sax man maa wax man Paa te te leer na sénégalais yëpp na képp ku am intérêt di xool développement politique du Sénégal à l'entente des élections présidentielles qui vont venir en février donc Mame Mbaye kenn ñaanu la ok a wër di wax ok loolu sa affaire la <coughs> maa ngi jégalu gis nga <coughs> ni nga tiitee woon ba daw dem làqatu ji ci gannaaw waa Pastef tey noonu nga tiitee di jéem a amadouer les de Sonko waaw nañ ma ñaan ci njekk ma retirer suma plainte bu retirer tous ñaanuñ la ko tey ñaanuñ la ko ëllëg moomoo Sénégal tey moomoo ko ëllëg Macky Sall ko tey moomu ko ëllëg Amadou Ba moomu ko tey moomu ko ëllëg yow bëggoo Amadou Ba yow nëbbuwuloo au moins lu lépp loolu yépp xam nañ ko Amadou Ba sa candidat te yow personnellement do candidat donc fo jëm un autre président sera là te Prodac di nga dem taxaw di nga dem justice boo luubalee te ñu mën ko prouver avec des preuves à l'appui documentées et tout mon ci dara di nga fay di nga fay haliste de lenn nag mun naa leen wax APR le PASTEF et le prochain président une bonne intention de faire la chasse aux sorcières une bonne intention pour teach tous les délits financiers de corruption de concussion etc. non faire nous dem faire. sa soxla soxlawuñ la prison faire nous devons faire nga dem de soxla point tey Mali tey le 27 décembre trois jours ci Ghana... quatre jours ci Ghana... Nous avons promulgué... lwa bo hamne, kepo kwenye diap ki loubol ati korupsyon, bo feye, nyobayi lan gadem. Ham nan denye, amotou nyoutan, pou tok nan ki, damo koubou gis chikasoube, kele damo koubou gis. Non, non, non, non, non, non. On a doti sha afouete, le devolopman, sosyo-ekonomik, de peyiz Afrika. Lolo mounye sohal. waaye nit ku dem kaso loolu soxaluñu nit koo xam ne dañ koy xeex du bokk élection loolu soxaluñu ñun askan bi le peuple les peuples africains le peuple sénégalais naka la ñuy def ba gis seen bopp ci biir koom-koomi Sénégal ñun loolu la ñuy liggéey nous on a pas de haine contre qui que ce soit que dañ ko bëgg a gis ñu tëj ko wala ñu bëgg koo gis ñu tere koo bokk élection ça c'est fini Mame Mbaye donc ak loo mun di wax yow kese yaay décidé bu la neexee nga retirer sa plainte sa affaire la bu la neexee nga bàyyi ko fi ba ba le quatre lii xew ñépp xam nañ ko tous les magistrats tout ce qui a appris le droit xam ne pour le cadre le cadre dogal du il faut que ñu yóbbu ko cour constitutionnel ok xam nga ko ñëpp xam nañ ko donc yow looy wër ci plateau yi di wax amul benn solo amul benn njëriñ bu fekkee na nga tiit da nga ragal fu nekk nii danga nga bugg a ak euh, euh, euh, avocat Sonko soo bii demal ñun yéeneewuñ la dara lu bon yow yaa nekk ministre yow lañ jox budget jox la xaalisi askan bi jox la taxi askan bi ne la géreel et tu l'as mal géré yow loo am pour wax

Les gens yaa ci des sabots dina parce que yéene yi du benn yow da ngay fay avocat état dafay fay avocat Sonko fayul benn avocat avocat Sonko yépp ils le font au nom du peuple sénégalais ils le font au nom de la justice c'est des avocats qui n'aiment pas l'injustice donc yàlla dafay ànd ak ñoom ubbi seen xel yi di len guider be yeen lepp lu ngeen tek rek ñu ne ko teul mu jall sen client jall continuer ñetti at yeena nga ci koom maam bay ñun faalewuñ la non non non non non neexalu la yow nag bu fekkee da nga tiit léegi ne euh, waa suñ ma ñaanee njekk euh, pra ken ñaanu la benn njekk boo tiitee xam ne sa dossier bii du tere Ousmane Sonko bokk ci élection yi bu la wóoree demal nga négocier avocat Sonko yi nga retirer sa plainte point ëllëg peut-être dinañ xalaat loolu peut-être je dis peut-être à titre personnel mais alal réew mi ngeen luubal dinañ ko lijjanti fépp fu ngeen ko dugal di ngeen ko goxi ñu delloo ko ci trésor ñu liggéeyal ko askan bi askan bi gis ci seen bopp foofu laay daanelee ci sama sama audio bi di gërëm ñëpp di sant ñëpp te di leen ñaan ngeen fexe ndax audio bi yegg te ci Mame Mbaye Niang seen mbokk Pandiaye Guèye Gara ci Banjul merci beaucoup.